éveille des naines, puissant et stylé, des soins qui vous ressemblent. Dream. Dini Dinière Dal, moi c'est New Year! 2.3, le nouveau son. toogal fii léegi xaar ma maa ngi ñëw. ok. ah docteur. Uh-huh. kim ma doon wax yegsi na ñu ngi lay xaar. d'accord super maintenant da ngeen may xaar salle de réception maa ngi ñëw rek. d'accord ok super. Allez, Parisou. D'accord, on va procéder au prélèvement. Docteur, ne nous devons faire rek ñu def li nous Ça se passe pas comme ça. La première des choses à faire moi, c'est que devons faire le prélèvement sanguin hein, ça c'est inéluctable. J'ai la certitude que mon il sera compatible mais loolu mënoo ci xam dara lii la ñu war def pour mun a xam vraiment ndax dina éventuellement compatible parce que moo ñu permettre ñu mën def donc laissez-moi faire après on verra. c'est le papa biologique de Nafi Qui moo jur Nafi. l'ai au courant. Vous êtes tenu par le secret médical. Je lui dirai au moment venu. Même s'il est compatible, il doit être au courant. 마세요. bi mo la juga bi mo jugee yeeba si bi. si Pafal jéem na nga foog galaj bi la. jërëjëf jërëjëf wallahi baba taxaw na la fan la wara taxaw baba fi mu toll ni lepp mat na baaba fi mu toll nii sëriñoo sëriñ ñepp taxaw nañ ci waaw tuwaar fa kala ñom Lamine ya ñom ñepp taxaw nañ fi mu toll ni ci combat bi Pafal bu wa yeeba ñom ñepp taxaw ne surtout xoccé te Tëngéej ya ngi dëgg baba fi mu toll ni mat na sekk sekk sekk àggal dur mu daan dur mu daan la lamba ji du dara la dul dur mu daan bul fa def dara la dul dur mu daanu rek mu wàcce ña dem ñibbi mbeur dernière bouteille bi nga laal ni mu ngi bu mag bi ñi wax mbey gay jeng nang ko fonk nag gàllaaj gu doy waar la oh, oh, oh, waaw waaw waaw pour que jam buusul buusul buusul waaw eh, baaba yaa ngi ma fàttali fi sa baay taxawoon nga taxaw tey ah baaba baaba baaba baaba kii nga taxaw nga daal ba pare lépp baax na baaba mbay saw ICS nee na boo daan terrain ngay taxaw ah? góor góorlu mbay saw ICS ah? nee na baaba daan na am na ñaari terrain moo ma wax lii kay ma ne asphalt nee na la fi mu toll nii ba daanee am nga poto baaba ah

bul jooy combat bi gay nekk mère bul jooy liñ si def yëpp combat bi dañ koy daan bu leen jooy bu doon def ni yéen bul jooy lébu bul jooy bul jooy mbër mbër bu jooy waay asfal asfal fi mu toll nii asfal dig na ab oto ab oto. mbër bu ah, jooy moo du xulee nee na pare moom te dina la bay ab mbër buy baaba fi mu toll nii moom. baaba fii la noo jaare a teg. acca mbër acca acca ndam rek Serigne Touba ndam rek jóg dem billaahi du yomb de. leer na koñ gaa ngi toj. maa ah. ah, yow ban bayra nga jox Zé. <laughs> koñ bi yëpp. Zé gauche Zé droite ñëpp yal t-shirt am. doole ma doxul jàmm. écoute man man vraiment je ne comprends absolument rien comprendre ma dara mais au moins tu me dois des explications. lan nga bëggoon ma wax la ko après suñu bêtises, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. mais bu bële yow tu préfères se taire voulais que je te dise Que je suis enceinte du meilleur ami de mon mari. Je n'avais pas le choix je ne pas ok Les choix bi nga am que que ne pendant tout ce temps et ce mosu ci te dara. ah vous êtes là. ah docteur. écoutez je viens d'avoir les premiers résultats bah, s'avère qu'il y a de très fortes possibilités que, que tu puisses donner un rein à Nafi. Ah. donc là Il va falloir que après nous devons def yeneen que ça sera possible il faut qu'on y aille maintenant. ah on y va tout de suite. ana Souleymane. il est rentré chez lui hein, il devait aller se changer je pense. s'il vous plaît bul ko ça fait partie de mes plans je m'en occupe. attends là vous voulez que je monte. docteur Souleymane su vous ne Talla moo nar a de rein Nafi xoolal du ko mës nangu te ñun ñëpp dinañ perdre et tu ne seras pas quitte avec ta conscience. J'oubliais que secret de famille ak secret médical font deux. dinaa ko def dina wax ak Souleymane. oh oh li li yëpp amuñu jot gi on y va docteur dañ ko waxat C'est une femme yaa ngi toog ah waa lépp man man ni man naa yow lépp dee ngi nii fu mbir yi toll. kuri kuri maga maa mën a ci ñëy ci ñëy doomu daam foo mu saraxen nan

lépp nga xam ne rek yal na baaba daan. yal na baaba waay amin waay amin amin waay amin waay amin amin na nga def. ñaan ma yal na baaba daan amin waay amin amin Amin waay amin wow, wow. Wah, yow Fifi Sen lamb ji tay. Lamb lañ papa ñoom moom la ñuy xaaj bi làmb ji nu muy nekk tey ngeen tok fi. Yeen ni ngeen neeno lamb ji mom baxul. di ndaa wul nañ si dee yéen di seen mbër mi leen dara Yeenu lamb bis bi ñew ngeen ko yalla. ah yeen dara sen mbër jaral jarul leen Fifi Ñu sun fami. ak lu na ban ci ñoon te gën ci gëna ay. bii ak bii jiguñu dara duñu lebal. yàlla na ko yàlla fa cat rek. voilà ngir yàlla s'il vous plaît. pas tey moom pas de xuloo. Zeye Aye wax dëgg fa ne de xuloo s'il vous plaît. lu waay doon jaay léegi mu lamb wure wa dem na kën. waxi mag dem na ndey taali. ñaari mbër yi. waaw ñu ngi ci seen ci gàllankoor jaaxal na ko dalee ci dàkkantaam. di yu bari. am na confiance lay naale. waaw waaw mi ngi sangu rek yàlla bu mu sangu ba liw nag ki nga xam ni mooy G daanaka pare na moom mi ngi naan heure bi jot na mi ngi naan na gaaw adversaire am mi ngi ko sëkkatal fi mu toll nii nag ñoom ñaar rek ñoo des ci géew bi le moment fatidique s'approche boo demee ci kër yi kenn toogatul boo demee ci mbedd yi kenn doxatul Zé ak Baba moom lañ doon waxtaane fépp ñoom ñaar seen bés bi ñëw na ndeysaan Baba papa koy nii. ma fi neex si xool xool làmb ji commencé na s'il vous di ko jox ay ndénkaane naan ko xalaatal sa yaay jala turooloon ndox ba ngay génn xam naa ni moom ko daan xalaatal waa koñ ba Baba Baba tey bésu ndam la tey joxeel loo mën ñaanal na ko ba pare waaye Zé mi taxaw rek impassible Zé moom pare na ba pare léegi nag fi mu toll nii ñëpp génn nañu. ndey ñëwul mbay ñëwul farandoo ñëwul ñoom ñaar rek ci biir géew bi tëj nañu barrière bi arbitre baa ngi leen di xool ndax diwu nañu wala diwuwul waaye daal ba léegi Baba pareegul ci gàllaaj yi am na nen bu mu yor di ko waaj a toj xam naa ni nen boobu bu ko tojee ba pare ah ci la combat bi di commencé arbitre bi nee na ndax pare ngeen nee nañu pare nañu see moom nee na pare naa bu yàgg Baba nee na xaaral tuuti ma toj sama nen bu ko defee ñu soog a bëree la pression l'adrénaline monte. Retenez votre souffle. Les battements cardiaques s'accélèrent. arbitre bi nee na ndax pare ngeen nee na ñu pare nañu xool na ay juge am le coup de sifflet est parti dimanche. allah su ne ñaan. waay waay waay waay. man de ko ñaxal. xam naa ne record Guinness la ñëm. waaw dama ni dimanche balaa may wax date ba. li mu doon nii ba jeex na. Baba day daa mel ni yëngootul Baba neena tek ndax Baba xamul ndax Baba deewul sa yi daw nañu ña koy réanimer c'est ma ngay jubilé kon bokki combat bi doon xaar noonu la mujje 3 secondes j'ai door na Baba mu daan Baba ñëw ko yóbbu ci ambulance tey Zedel loo daan na ñaari yoon de. ah daan na ñaari yoon. <laughs> ndeysaan ndeysaan daan na ñaari yoon. dëgg la <laughs> de. sibile mhm. bi sax waroon naa mën a gën a sibile. Mhm. ndax condition bi may na ma waaye saya menari juga ya, nih ya? hmm, hmm, hmm, ah, rek sama xel mi day dem ci nickel. ah ndeysaan. bu defee damay paniqué. ndeysaan. ñu sant yàlla rek te xam ne ñaari mbër yëpp suñuy doom la. wallaay wallaay dëgg la de dëgg la de. ndam li génnul réew mi. waaw waaw. lii rek mooy àdduna sport fa la. làmb lii la rek. waaw waaw. làmb lii la rek. waaye nag bettu moo ndax baayam. mën naa ne ay dóor ko génn làmb ji. loolu moom ñun ñëpp xam waaw ñëpp xam 68 xaju fi. xam lu xew. waaw. sant rek. Mhm. xam naa ne bu luy weesa moom. Mhm. boo gisee ma bàyyi fépp ñëw sa kër gi di fi di fi di fi dégloo ji. Mhm. sama kër mënuma faa am jàmm. sonn naa trop. nikel maytuma jàmm. te gis naa ne sama wëllëre nga lu nit ñi bari bari bari mu Fall fa ma la teg teg ma fa kenn bëgg naa la trop te yàlla tax te xam naa ko ma fonk ma ñëwoon pour ñaan la njëkk ak sutura nga doxaat say tànk dabal ma ci nikel. barul mako ak mu meuna a delluwaat sama sey ndax ken respecté ya, tu Nikel numay def ba mu baal ma yaa ma jitu ci negu sey mu bëggul nga dimbali ma ci rek dolli ma ci ay kàddu man nak bul xol ci ni ma mel bul fàttalu ki dembi tam lo ci man rek was bi ci ak rek. yaa wax ko de son na trop. yaa wax ko de demb mom dama koy fàttaliku xamul na ni intérêt la findi ngay dar mu ni ni dar men dara fi nga togon ma am problème dila ko wax nga nan ay SMS ak ay ay bul ak di wax waxi ñaka fayda yaangi ni di dar ngoni dar man dara fi ha dama lay top dama lay top ba nga seuss maa ko ñaan dama lay top ba nga seuss dede yooyu tam bul top sa xol. damay top sama xol damay ko demb. bul musa dama koy fatali ko maa ko ñaan maa ko lay war a ñaan. lenn dal bëgg na la ko di la dimbali te yalla tax. ko sax. ah ah mu de mu mu ci aduna bu ko def dama ko ñaan rek. te ko ñaan ci yalla rek tax dama xamni buma di la dimbalee suba bu sa lepp baxé nga def sa jukko ju bon ji nga doon yow sa jukko non la mel araab wallahi wallahi duma ko delu traiteur gi kay dama koy bayyi complètement kon xam nga ni traiteur nga hmm, dama koy bayyi kon baxna kon baxna na naa ah, rek parce que ma la toppee du bax ma la du euh, <clears throat> xam nga yow muso mhm. nikel du tuba ah. hmm? ah, ba nikel du tuba ah tuba ba gëna a dakh ci aduna bi ah is kon tubaab mét ni kenn maîtrisé woo ko tubaab a gën a neex a nax mhm. wutalu fleur fleur yi di jaay waaw wutalu fleur def ca bonbon bu nooy nepp def ca bonbon mhm. daal di koy wutal ab liifar jox ko ko loo ko wax mu ni waaw jëlal fleur bi wicca laaj ko lañ bu saf sap boo ko joxee bu koy fondi wàcc tubaab loolooy kiiwam di lii maa la ko wax tubaab rek is eh. <laughs> karena maa ya. baax ci yow xam-xam sa <laughs> réew lii ma la wax daal boo ko mau mhm. loo wax waaw mau moom lay moom potu fleur moom lu jar dafa jar jënd poti fleur doo dem ci tool yi Cambérène ni ñaan fa fleur ñu may la day tool yi du baax baal ma jënd rek ndax tool yi ay salaam doo nga fi ne tool di jaay fleur lii waxati dinañ la may ab fleur nga laxas ko ba mu jekk mhm. wis ca parfum waaw daal di wut sa bonbon nooy ak sa mbiskit yu tubaab yooyu boole ko ca boo ko koy jox buy fóon nii loo wax waaw lay wax croquette day dëgër oui

Ouais, d'accord. Voilà, le labo est prêt, c'est vous que j'attendais. Super, on y va. Tala. Tala. Tala. Fadde. waaw ci loolu ne yow gis naa ça va. ça va bien. man waxuma loolu Tala looy def ci hôpital bi. dama defoon test sanguin bu baax. damay def nii analyse pour may na fi Alhamdulillah, rabbil alamin. Et waay lii yàlla rek ko mën ah Mm-hmm. lépp lu la naqadi sa àdduna man maa la ko teg tas naa sa yaakaar bëgguma ku yow malgré tout les bêtises que j'ai ci réccu laa dëkk te xam naa ne si laay deewee tàggale naa la ak sa meilleur ami tey mën la tàggale ak Nafi waaye xam naa ne bu la dese woon sax benn rein dinga ko jox Nafi toog rek ba sonn duma tàyyi dama lay ñaan nga dégloo ma xel te bañ ma dégloo xol juruloo na fi instant mu jug rekk moo ñu amal importance mu wér taalum da ngay fen da fen tu mens da ngay fen Rayma xam naa ne loolu rek la vérité da fen waxuloo dëgg da fen da fen da fen dangay fen dangay fen waxuloo dëgg dangay fen dangay fen waxuloo dëgg dangay fen dangay fen Diop. loo may woowee. yow Souleymane déglu ma. loo may woowee. xoolal déglu ma mu wax la neel alhamdulilah rabbil alamin yow xam nga ne su ma la wooyee nouvelle mu neex laa lay doyee wuyu ma taala compatible na pour may na fi ren xanaa taala sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin Bariso. waaw yaakaaroon ne résultat yi war na génn. Euh, je sais pas je crois. pas ah, Bariso. Bariso. au moment que j'entends. Comment il est venu Ça doit sûrement être le papa de la filière. un décor, votre personnalité devient un style. Des belles des puissants et stylés, des soins qui vous ressemblent. Dream. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3, le nouveau son.